mbokk yi waxtaan bi yépp li ñuy wax fii mooy lu jëm si li ñu jublu lan la ñu jublu mooy suñu waajur bu tedd bu ñuy wax Makki Habib mu nga xamee ne moom moo doon diplomatu famille bi moom la Thierno Seydou Nourou doon yónni si chef d'état yi moo doon dem foofu ki ñu yónni nag si chef d'état dafay nekk nga am ku am xel nga mot ku motoon la ku amoon maslaha si àdduna la ku doon euh, naxanteeg ñëpp mun na nekk fa ku nekk ni nga toll yëpp mun na wàcce ba fot yi tolloog yow kooku nag la ñu war a ñaanal euh, suba incha allahu defal ko fi juróom-ñaari kaamil suñu paree am na waxtaan bu ñuy def euh, su ginnaaw boobu euh, cérémonie officielle bi nañ ko def ay cinq heures njaboot gi yëpp ñu ngi siy woo njaboot gi yëpp ñaan la rek ak fàttali ko ndax àdduna lépp fàttaliku la ndax soo gisee màkk nit ñi di aji li fa nekk yëpp ak tiskaar la mooy fàttaliku euh, euh, Haajara fàttaliku Ibrahim fàttaliku Ismail yooyu mooy événement wu màkka kon fàttaliku kooku lu am si lislaam la nit du fàtte ay waajuram ndax nee nañu ñu nekk barsax toujours am na malaaka buy jóge barsax ñëw si àdduna lu koy indi si àdduna dafay seet képp ku ñaanal ay néewam mu jël ko yóbbu ko su demee ñoom ñu nekk bar sax ñëpp dañuy jóg taxaw ñu jógee taxaw ku nekk mu ne la kii sa doom jox diw jox na la sa xarit diw jox na la ku am njaboot nag suñ la yónneewul dara di nga mer te moom mérité na ñu koy yónnee ay ñaan bés bu jot te yàlla defal na ko loolu incha allah kenn du ko fàtte si àdduna bi kon lii daal moo doon événement bu jëm si suñu waajur bu tedd bi nga xamee ne njabootu Cheikh Omar yëpp mm, ñu ngi ko fonk nañ ko ba si Cheikh Omar Mountaga Daha ba si eh, eh, Thierno Hadi ba si eh, Thierno Omar Tall ba si Habib Mountaga Daha ñoom ñëpp amoon nañu ak moom ay relation amul kenn si njaboot Cheikh Omar kuy wax ne Makki Habib am naa digganteeg moom amul frontière ci kër yu nekk bu ko neex lay dem kon kooku moo doon diplomatu famille bi kooku nag waruñu ko fàtte war nañ ko ñaanal war nañ ko sant lim ñu defal ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man asda ilaykum bi maarufin fa kaafiu fa in lam tastati fadu lahu su leen nit defalee yiw sant leen ko ñaanal leen ko su fay leen ko su ngeen ko mënul fay nga ñaanal ko moom nag yiw ñi mu ñu defal duñ ko fàtte dinañ koy ñaanal layla nahaar guddi ak bëccëg duñ ko fàtte kooku mooy suñu waajur bi ñu war a defal suba ay ñaan yu jëm si moom incha allah yi am nañu yaakaar yàlla dina ko nangu li si des mooy ñu ngi jëm si ziyaara bi nga xamee ne mooy ziyaara Thierno Saïdou Nour ak Thierno Muntaka kooku événement bu mag la di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may fekkee le 24 janvier boobu lay nekk te dafa dajeeg tamit juma Cheikh mar bii ñu naraat ko defaraat di si woo mbokk yépp ku nekk. na ñëw dugal ci loxoom man banaa lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna yonent bi nee na képp ku tabaxal yàlla néeg dina la tabaxal kër ci àjjana mais suñu waxee tabax dañuy wax kon mi kon millionnaires yi rek la ñu wax mu delluwaat mu ne walaw qadra mafxasati qataatin hay si no même su dee eh, fu picc du tëdd lu toll noonu nga si def mooy lu toll ni brique nga si def soo si defee loolu yàlla dina la fay kooku événement bu lay am na beneen événement tamit bu ñëw mooy silaama Cheikh Omar radiyallahu taala bi ñuy wax bi polémique yi bëri nañ ci wax ne silaama Cheikh Omar la wala du silaama Cheikh Omar almuhim ñu ngi ko jël ségu biñ koy jël ñu ngi ko jël mille huit cent quatre vingt wala quatre-vingt-neuf wala quatre-vingt-onze moment boobu fekk aamadu Cheikh taawu Cheikh Omar moo nekkoon ségu moom géej na gisanteeg Cheikh Omar ñaari at bi mu nekkee duggee Ségou dugg foofu Cheikh Omar nekk Bandiagara Cheikh Omar daf ko wax ne loo ma déggal bul ñëw lu ma la déggal bu ma ñëw bul ñëw ko donc géej nañu gise silaama boobu nag mu nii nañu Cheikh Omar moo ko ko jox am nañu ne Tidjani Alpha euh, Amadou euh, Alpha Amadou moo ko ko jox mais almuhim silaamam la moom kooku wóor na mais wax ne silaama Cheikh Omar la walla silaama doomu Cheikh Omar silaama Cheikh Omar la mais silaama Cheikh Omar dëggantaan bi mu doon yore ba muy ndax Cheikh Omar mënul joxe silaamam su ko joxee moom lan lay def ginnaaw gi dund na ginnaawam bu mu joxee si bu kii jëtee silaama bi ségu nekk na hamdallahi nekk na fa bi mu fa jógee dem na di Degembere bi muy dem Degembere tamit mu ngi yore woon silaama silaama boobu Tidjani Alpha Amadou lañ ko jox Tidjani Alpha Amadou bu mu demee Muniru moo ko jël Muniru boobu bu mu demee lam julbe si boppam Amadou bii moom moo ñëwaat yorewaat silaama bi ba tey njabootu aaqibu ginnaaw gi aaqibu ñëw jël ko njabootu aaqibu ba tey ñoom ñoo ko yore seen trésor la ku fa dem di nga fa fekk silaama boobu kudul julli même su dee jullit nga su dee doo julli mënuloo ko laal ndax dafa am ay mbóot yi si nekk du nit ku nekk ko ñeme laal même soo demee foofu suñ la ko joxee soo wóoluwul sa bopp soo ko jëlee di nga am ay jaf difficulté donc yooyu tubaab bi ñu ko jël ndax Cheikh Omar bi muy duggati Kajoor 1864 la Silama bi ñu ngi ko jël 1890 wala 91 kon nag loolu mënul nekk euh, borom xel xam nañu Cheikh Omar tubaab yi gañe ko moom moo wax doomam Tija doomam euh, Amadou mu ne ko kenn du la wax taxawal di la di la àtte noonu la amee Amadou mu ngi dee mu ngi génnee àdduna Nigéria foofu la génnee àdduna tubaab mosu ko jàpp mosu ko laal kooku mooy Cheikh Umar Cheikh Umar yàlla daf ko mayoon euh, kon nag lii daal mooy si gàttal yàlla nañ yàlla may seen i barke loolu mooy yiw bi yëpp fa bi rikri saalihiina tatanazzalu rahmat fu ñu tuddee ñu baax ñi yàlla day wàccee yërmande kon suba événement bu ñuy def ñu baax lañ fay tudda yàlla dina fa wàccee yërmande dina faj aajo yal na yàlla faj suñuy aajo